لدينا سميت سلبية أدداد قد نفيت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 liggéey bi mbooloo mi nga xam ne nag tey jii moo ngeen fekk mooy ma mafaatixul bisri mu Mouhamadul Mountakha tudde woon ko ko bu yàgg waaye mbooloo mi depuis 2097 lan tàmbal woon doxal liggéey bi waaye xam nga mbooloo mi doog a jóg léeg-léeg dem ba ci biir ma xaw am dégg waaye 2003 bi biñ ko lancé waatee ci la ñu baree bari daw ñëw 2003 googee ba léegi nag ñoo ñee ko doxaloon ba tey ñoom ngeen di gis ñoo fi nekk di ko doxal yàlla def mu dem ba yaatu yaatuwaay boo xam ne nii mboolem ci 14 régions yi ci Sénégal yëpp mbooloo mi ñu ngi ci ak fii ba bitim réew mbooloo mi ñu ngi ci ni daayira yëpp doxee moom lay doxee waaye ñu dañoo tënku ci ñaari mbir bi ci jiitu mooy fii ngeen ñu fekk tey muy diwaanu proxaan ñun soppi ñu tànnal ko suñu bopp waaye ginnaaw bi ñu ko tànnal suñu bopp it sëñ Moustapha Bassirou moo ñu ko joxo ñooñu ndax ginnaaw yàlla fii ngeen ñu fekk tey sëñ Moustapha Bassirou moo ko joxoon jëwriñ ji sëñ Xaadim Gueye mu ànd ko mboolem soppe yi waaye li jëm ci mbirum soppi rek ak seen jëf mooy préparation bi nga xam ne toujours ci la ñuy nekk mooy saa suñu gàmmoo saa suñu gàmmoo ñu tàmbali nañ suñu wàccaay màggalu Porokhane di dem ci régions yi ci Sénégal yëpp di def ay ngont ngir waajal bis bi ngont yi ci ñetti mbir ci la tënku bi ci jiitu mooy fi ngeen ñu fekk mooy berne yi ñaareel bi mooy bu subaa ci àjjuma ñu dem siyaare ji Cheikh Mouhamadul Mountakha ñetteel ba mooy bu buñ siyaar Cheikh Mountakha pare dañuy dem ca daare Porokhane ja yóbbu fa addiya yi nga xam ne ñoom la wutal soxna jaar yi kon mbooloo mi loolu mooy seenub liggéey waaye ñoo ànd koog moom eh, kon limal naa la ñett yi ci nekk waaye ngir mbooloo mi nga bokk ci nga ñëw dugg ci biir mbooloo mi bokk ci ñaar ci ngay mooy da am carte membre bu dee fi nekk la ak ku fi nekkul carte membre boo xam moo lay may nga adhéré wu dugg ci biir mbooloo mi di ma faatixul bisri bu loolu jàllee am na ay cotisation yoo xam ne ne dañ koy def cotisation yi ñuy def nga xam ne góor ak jigéen ñoo koy bokk loole ginnaaw bu ngont yi ñëwee ba noppi ba xam li ñu am ci liggéey ngont yooyu ci la ñuy jël loole boole ko ci ngont yi boole ko ci liggéey bi xaalis bi mu doog a ñëw muy ñett yi ma la xam ne ci la tënk kon loole mooy liggéey bi yaakaar naa ne eh, miin ngeen ko saa su ci nekk rek bu ngeen duggee fi ak bu ngeen duggee ci kër ga xam ngeen ne xam naa di nga ma ko laaj mooy lu jëm ci wàllu budget bi muy lu lu takk loo xam ji buñ ko dee def ñu koy def duñ ko yëg ndax ki ñu koy defal a tax ndax daa am lu ñu sëñ euh, Serigne Sali waxoon ay jamono bi ñu demee di ko siyaare 97 mu ne ñu woon ginnaaw bi mu ñaanee ci mbooloo mi wax ci waxam yu rëy yooyee loolu moo ñu topp ñëpp am xéemam teef bokk ci liggéey bi boobu amaguñ aw tur dañ nga wax soppe sëñ Xaadim Gueye waaye sëñ Mountakha mii moo ñu ko tuddee Mafatihul Bichri ba mu ko tuddee nag nekkul xalifa général de Mouride loolu ma leeral ko 14 régions yi ci Sénégal yëpp ay soppe danañ fa jóge ay soppe danañ fa jóge ñëw fii ci dëkk bi ak ba Gàmbi soppe Gambie bi ci guddi leen ñëw démb ci ngoon kon dafa mel ni fii ba bitim réew ay soppe nga fay jógee di ñëw fii boo duggee ci daal bi ak fii ci wàññi mboolem ci 14 régions yi Sénégal yëpp ay nit nga fa jógee ñëw fii ndax ci mbooloo mi lañ bokk ci mafaatixul bis bi ñu tënku ci génn benn buum loolu moom ci ci la ñuy dox ci la ñuy ci la ñuy ci la ñuy ci lañ nekk saa suñu nekk daal duñ ko jógee incha allahu rabbi ñu gën a laxasaayi waat gën a jaajuwaat gën a am pas-pas ci liggéey sëñ bi ñu ne soññee boobu nag ci laay jaarale ak cant mooy lu jëm ci ñii ànd ñun liggéey bi ñu mel ni que yéen ngeen toog dañu leen tuddee xale Serigne Khadim Gueye waaye ñooñu tuddee doomi Serigne Khadim Gueye ak ñii nga xam te ji ay soppi lañ te bëgg Serigne Khadim bi ñu ànd ñu ci liggéey bi waaye na yéen kenn jiitewu leen ci yéen ñi nga xam ne ay xale ngeen ngeen tuddee doo xale Serigne Khadim Gueye kon ñu ngi leen sant bu baax bàyyiwu wuleen ñu benn yoon saa su ci nekk lu nekk yéen a ngi ci ànd ak ñun guddi ak bëccëg suba ak ngoon bàyyiwuñ wéetuñu saa dee soo gis leen da leen di wéttilu lu ko kon kon ñi ngi leen di sant bu baax ñi ngi leen di gërëm soo ñee boobu nag weesuwut ne nañ la xasaay wat ay ndaw lañ sëñ Tuubaa lañ bëgg sëñ Tuubaa lañ gëm te yaakaar ko te wóolu ko kon liggéey bii bu ñu ci kenn man nan gën a laxasaayi waat gën a góorgóorlu waat jël lu dul noonu ñu teg ko fële ci àll bi ci ànd booloo man li sama bëgg-bëgg en tant que ki ñaan mooy jëwriñu liggéey bi président muy sama jëmm ji ñu ñëpp ñu àndoon doon nekkandoo benn di xàccandoo du dóorandoo ñi ngi koy def naam waaye li ma gën a neex daal saa suñu agsi waatee fii lépp doon benn loolu man ci laay dox guddi ci laay dox bëccëg comme yéen loolu ngeen bëgg ñun loolu lañ bëgg liggéey bi ñun ñëpp war nañ ko mën a àndandoo bokkandoo benn tëni sax yi ñu solandoo war nañ ko mën a bokkandoo ndax lépp benn la lépp benn la waaye boo duggee kenn ku ne nag pas-pas bi nga am maan am rek ci ngay wane gis fi bare waaye ñëpp ñoo bokk fenn fu ñu sottee ñoo bokk fu ñu rootee ñoo bokk fenn fu ñu sottee muy soppee xasaay di lañ te ma faa deful bisri lañ bokk ñëpp rek ñoo ci yem kon lay lay sama bëgg-bëgg man lépp ñu bokk ndool lenn lu ñuy sol ku dugg ci waañ wi dañ xam ne ñii kat benn lañ amul xàjj amul seen ndax ñoo bokk fu ñu jógee ñoo bokk fu ndëkk ñoo bokk lu ñuy liggéey ñoo bokk bëgg-bëgg pas-pas bi benn la dara mënuñoo yàqal ci lii ñu nekk gëm nañ ko bëgg nañ ko ci duñ ci duñ ci faw réewuñ ci kon lépp benn la kon nag loolu man mooy sama soññee bu jëm ci mboolem ku may dégg nga xam ne da ngay seetaan lii wala nga di ko déglu wala nga bokk ci liggéey bi ñu topp ci groupe whatsapp yi ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di am mbégte bu baax nag ci taxawaay bii ngeen taxaw ba ngeen ñëwee ba léegi yéen a ngi ci di sonn bay bëgg a dee mention spéciale nag ñi nga xam ne ñoo jiitu si li depuis li ëpp une semaine ngi ñu nekk fii baas baas yi indi matériel bi dañuy ñëw rek fekk ñoom ñu defar lépp ñu dugg ñooñu it xam nga ne daanaka ñoom ñooy lépp waaye ñun ñooy ñoom ñooy bopp bi ñu ngi leen sant ci jëwriñ ku mel ni Serigne Ahmadou waaye ku mel ni sëñ Baye Niass nga xam ne ñas Niass Mbax Moustapha ku mel ni Fallou Diop yéen ñi nga xam te ji yéen a ànd liggéey bi it ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp xam ne suñu xol sedd na lii xam ne interview bu ndaw la woon waaye léeg-léeg da ngay toll foo xam ne nii da sam xel toujours ci li nekk rek lu baax lii ngay yëg sa xol da koy bëgg di génne waaye xam naa wuute nekk sax lu yaatu ñu ngi laan di jaajëfal bu baax di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu ndongal sëñ Touba Modou Diop Koordinator soppe Serigne Khadim dié yi fété Dakar ci euh mi ngi nuyu ñëpp di leen siyaare bu baaxa baax tay balak ñëpp tay baalu ñëpp di siyaare wa al khashida TV ñëpp rek tamulé ci jëwriñ ji serigne Khadim ba ci mboolem ñi nga xamné ñi ngi ci daara ji ñëpp di taxaw liggéey bi ñoo ngi leen di béggee bu baaxa baax té leen jaajeufal ñun day mbolo lan mo xamné ne and di liggéeyal Serigne Touba ak Soxna Jaara sunu buntu ci liggéey bobu nak jaare ko ci sëriñ xaadim gi xasida yàlla boole ñu moom ànd bu yàgg nag yàlla dogal tamit lii ñuy wax kuréelu soppee yàlla dogal ñu taxawal ko fee samp ko fee ca dakaar bokk ci ñi nga xam ne tamit ñooy ñooy jiite liggéey ba ginnaaw buñ ci jiitalee sëriñ Cheikh ñi ngi bi nga xam ne ak soxna Faama Ndiaye sëñ Daam Cuun ak sëñ Moxtaar Thiaw Ndaari ak euh, soxna Bintu Gueye ak soxna Mbooju ñoom soxna Ngóone Diouf ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ àndal ñëpp liggéey bi at mu jotit yàlla dogal lu mat fukki wala lu ko ëpp ñi ngi ànd ak liggéey bi mbokki daare yëpp muy waa mu Mafatihul Bichri yëpp di soppe Serigne Khadim yëpp fédération bi ci njiitul jëwriñ ji Serigne Abdoulahi Ndiaye di ñaanal yàlla gën a dëral ab taxawaayam ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal ñëpp di santaat yàlla bu baax ci boole gi mu ñu boole ci liggéey bi soxna jaara ji nag ndax liggéey la boo xamante ne si euh, saa su ne dama koy fàttali euh, nit ñi ne leen li sëriñ Moustapha moom Cheikh Madul Basir waxoon Serigne Khadim Gueye ci soxna jaara bi nekko daa am ñoo xam ne dañuy jóg ngir liggéeyal soxna si waaye dafa am ñoo xam ne soxna si mooy jóg ngir liggéey loo leen lii nag firne la ci jóg gi nga xam ne moom la soxna si jóg di ko liggéeyloo Serigne Khadim loola ñun dañ caa bokk dañ caa bokk maanaam xëy na yéen ay liggéeyal soxna si lan amoon waaye ngalawaay bi nga xam ne Cheikh Moustapha moom Cheikh Amadou moo waxoon ko dafa am ñoo xam ne dañuy jóg ngir liggéeyal soxna si waaye am ñoo xam ne soxna si mooy jóg ngir liggéey loo leen alhamdulilahi bi nu bokkee ci ñi nga xam ne soxna si daa jóg ngir liggéey loo leen loola sant yàlla la kon noo ngay bég ca loola bu baax a baax a baax di ci ñaanaat Serigne Khadim Gueye mii nga xam ne moom lañu yàlla booleel mu doon sunu bunt ci liggéey bii ci ma faatoxol bi sëriñ doon kilifa gi doon jëwriñ ji di ñaan sunu borom gën a dëgëraatu taxawaayam ba taxawaay bii nga xam ne moom la am ci soxna euh, soxna si ak yéene ji ak pas-pas bi yàlla saa borom gën koo dëgëral ba at mu jot mboolem loo xam ne mu ngi koy def ci liggéey soxna si di ko ànd ak soppe at mu lu mu ci man ren rek bu déwénee yàlla na man lu ko lu ko ëpp mbooloo mi moom mbooloo la moo xamante ne si porte ouverte la suñu porte amut tëju saa sune rek ñi ngi koy ubbi ngir yaatal liggéey bi loolu nag li ko waral rek mën nañ cey joxe firnde ci sëñ Touba sëñ Tuubaa Cheikh Sidi al Muxtaar mbakke yal na yàlla dolli ay ay leeram te taas ñu ci barkeem dañ koo siyaare ji woon eh, Touba Kër na yàlla dogal bi nu fa demee moo am soññe boo xam ne soññe woon na ko ci mbooloo mi waxoon ne mbooloo mi maa ngi soññi képp koo xam ne bokk nga ci na nga ci feddliwaat sax laxasaay wax ne mbooloo maa ngi socc soññee képp koo xam ne yàlla dogal na bokkoo ci woon na nga fexe noo ci bokkee waxoon ne mbooloo mi maa ngi so maa ngi maa ngi sàkku fépp foo xam ne amu fa woon na ngeen fexe mu am fa loolu sëñ tubaa Cheikh Sidel Muxtaar bi mu nekk sëñ tubaa fii ci kaw suuf moo nu ko joxoon ndigal fële ca tubaa kër ngànna loola nag doxin woowu la di doxe ñun nag bokk gin ci bokk dañ koy santawaat yàlla bu baax comme ni ñu ko waxee léegi rek waaye nag di ubbi maanaam di wan ne milieu la boo liggéey la boo xam ne amut amut ay porte dafa ubbeeku képp koo xam ne bëgg nga cee bokk te nga féete soow bu yàlla dogalee nga dégganteek ñun wet goo féete rek mën nañ laa wax fu fu la jege foo xam ne da nga mën a da nga mën a jokk ca loola ngir yaatal liggéey bi bu fekkee Colobane soo dégganteeg ñun bu fekkee ne numéro téléphone la euh, boo defee 76 646 19 62 da nga dégganteeg ñun ñu jox la ay tegtal yu leer yoo xamante ne si da nga mën a ñëw bokk ci mbooloo mi bu fekkee ne tamit numéro orange 77 la 646 49 64 ñun nag ñooy coordonné mboolem li nga xam ne moo jëm ci wàllu liggéey bi nga xam ne moo jëm kolobaan ñun ñooy coordonné loolu ànd ceeg suñuy jëwriñ tamit depuis daanaka 2009 wala yu yu demee noonu bi ñu taxawal liggéey bi ba léegi loolu ñun ñoo ko yor ñoo ko yor am nañ fi jëwriñ nag mooy Serigne Cheikh ni ma leen ko waxee léegi ak Soxna Fama ñooy suñu jëwriñ ci liggéey bi waaye daal porte la boo xam ne si ubbil nañ ko mboolem koo xam si am nga yéene liggéeyal Sëñ Touba am yéene liggéeyal Soxna Jaara nga ñëw jokk ci ndax liggey la bo xamanteni ne si boo gisee sëñ xaadim di def ni ak ak soppe bala nga xam dayob liggey bi deug deug deug deug da nga ak si ndax ku gis mbolo mi ni nu démé doon ay soxna doon ay gor yalla kenn ku ne am fo jokk waye buñ dikkee xemmemte fi rek moy moy nek ci kër sëñ xaadim man mi di wax ak yeen talibé dar mi nam la sama kër sëriñ mi ngi ni kër seigne abdakim moma tarbiya seigne jilim seigne abdakim moy sama wasila këram ma ngi ni waye li nga xamne mom la and seigne khadim it dama ko ci wax ba jot ci ndigalul ngir ñu ànd ceeg moom mu gën ñu cee soññi am ci ndigalu suñuy waajur am ci ndigal lépp mooy lu baax daal boo ko dee def képp koo yëgal ne ko yaa ngi def lu baax lam la cay lam la cay lam la cay lam la cay dolli mooy soññ la ca encouragé la ca ngir nga gën góor góorgóorlu kon nag ñoo ngi ciy soññi mbooleem koo xam ne yaa ngi ñuy dégg ci réew mi ak ci bitim réew bi bitim réew boo fa nekkee du ñàkk euh, fa nga nekk danga am ñoo xamante ni boo ci waxee ñoom dana dana mën a taxawal ay kuréel kuréel yi warul yam rek ci biir Sénégal kuréel dafa war a jàll dans le monde entier adduna bépp waxuma menn réew bàyyiwuma menn fépp boo xam ne ña ngi fay tudd sëñ Tuubaa dafa tudd xasida sëñ Tuubaa sëñ Xaadim na sëñ Tuubaa ci liggéey xasaay liggéey boo xamante ni ji fépp am mbooloom nekk rek war na noo mën a présenté wu lëkkaloo doon genn càll la ci njiitul jëwriñ sëriñ Abdoulahi Ndiaye ndax loola mooy li nga xam ne mooy doxal am mbooloo adduna organisation la laaj organisation nag mi ngi tàmbalee ci fu ñaan ndax yaakaar naa 2005 laa njëkk a indi sëriñ Xaadim Gueye Colobane Colobane fi sëriñ Xaadim Gueye di ñëw 2005 yàlla dogal na ñun ñi rek la fi xamoon ci sunu sunu jëmm waaye dem na ba fi mu nekk nii xam na fa ay centaine de personnes loola nag mooy nit ki daal fi nga nekk te nga xam ne am nga koo xam ne si am nga yéene ci moom rawatina sëñ Xaadim war nga présenté wu boo ko sa bopp rek ñeneen ñoo xamante ne si xëy na xamul na woon liggéey bi mi ngi dox te boo leen ko waxee xëy na danañ ñëw bokk ca liggéey ba te ñu bëri bëri sax buñu ci bokkee dañ naan lii de ko xam kon euh, mooy loolu kon daal na ko ñëpp fépp foo xam si nekk nañ fa waxi sëñ Sidi Muxtaar Jaa nañ ko def fu mu fu amutoon nañ ko fexee def fu mu amoon nañ ci fet ña fa nekkoon nañ ci fetliwaat seen i laxasaay waaw kaddu yi mu di daal mooy gën a santaat sëñ tubaa te wax ne amul loolu sëñ tubaa ay xalalam suñu xemmem téef mooy liggéeyal sëñ tubaa liggéeyal sëñ tubaa nag danoo gis ne benn porte gënu cee gaaw porte soxna jaara ndax li nu déggee borom xam-xam yi di ko wax di wax ne sëriñ bi nee na béréb la boo xam ne fii ñu nekk muy poroxaan béréb la boo xam ne ku fi dikk da nga ko fi fekk soo ko fi boo defee jàng mu fekk la mu fekk la fi kon wax nañ ne béréb la boo xam ne sañ bi du fi jógee kon nag yaakaar na ne liggéeyal sëñ Tuubaa moom gën naa gaawe ci euh, di jëf ngir ngir ngir poroxaan kon noo ngi ciy soññi mboolem fu waay mën a nekk fu waay mën a nekk ci aduna bi muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw bàyyi wunu fenn biir Dakar it fépp foo xam ne am mbooloo nekk nañ fa lu mat fukki nit wala yu demee noonu suñ ñu woowee ndax amoon nañ ko ci ndigalul jëw ni sëñ Abdoulaye Ndiaye ngi nii toog buñ ñu woowee su fekkee dañ leen war a sampal bu sëñ Abdoulaye Ndiaye ñu mënul dem suñ ñu woow ñun dana danañ dem taxawi fa liggéey bi daal bëgg nañ mu yaatu ci mbooleem mbokki taalibe yëpp yëpp yëpp bàyyiwun kenn bay bàyyiwun góor bàyyiwun jigéen bay bàyyiwun mag bàyyiwun ndaw ñëpp daal ñoo ngi leen ci soññ ngir liggéey bi gën a jaar ndax lii moom wax dëgg yàlla ko xool ko xool lii xam ne liggéey sëñ Tuubaa rek am njariñ liggéey sëñ Tuubaa rek am njariñ kon nag na leen ci gën a góorgóorlu di ñaan yàlla suñu borom ñu def ñu teewe ko ay at yu bëree bare bëree bëri dem bari ko ànd ak suñu set yàlla mën na ko yàlla jeexul dara ñoo ngi koy ñaan bi jaay seen wujjoo barke bi leer alxuraan ak xasaayid yi jërë ngeen jëf. di rafetlu taxawaay bii di ànd ak sunu financier bi nga xam ne moo nekk ci ma Mafaatihul Bichri bu Gambie man mi tudd Ablaye Tall ñu may wooye jëwriñ ji kii di Baye Badou mooy financier bi nga xam ne lépp lu ñu war a rajo si wàllu koppar moom mii moo koy moom moo koy moo koy denc nga xam mooy saytu wàllu xaalis beeg yooyu moom laa taxawal liggéey bi nag ku xool lii da ngay xam ne jëm kanam ak sëñ Tuubaa feeñ na ci ndax ku xool ay at ci ginnaaw ndax jëmmi sëñ Xaadim 95 la ñu yàlla boole mu njëkk a dugg Gàmbi jàng si yàlla dogal kóllëre googu am suñ diggante ba suñ jëmm yi di ko tuddee doom muy lu set ñu ëlbëfu so soso fa daayira mu ñëw ci mafaatul bés yi ci njiitalu sëriñ Abdoulaye Ndiaye nga xam ne ñun yéen lañ nekkal Gàmbi ca ca daayira soppe yi mafaatul bés bi muy liggéey bu set boo xamante ni àllar bu ju jot danañ ko dajee dañuy daj addi Sëñ Tuubaa di jëm ci Soxna Jaara di jëm Sëñ Muntaxa ñu ànd ko ci ndigulu Serigne Abdoulaye Ndiaye nga xam ne lépp lu rotee ci fédération bi ñoom danañ ko rotal ci daayira bi te buñ ko rotal ci daayira bi dañ ko ànd ak mbokk taalibe yi ñu ñëw ba ci màggalu poroxaan gi lépp loo xamante ni ñoom Sëñ Abdoulaye Ndiaye waxoon nañu ko jéem nañ si suñ kem kattan fas yéene topp seen ginnaaw lañ leen waxoon duñ leen wor duñ leen del duñ tu ginnaw engagement ñun ci kanam rañ am te jëm kanam ak Sëñ tuba dañuy ñaan ñu fekk ci loolu and ak ñom and ak ñom liggey bi ndax ñom wax deug yalla jëwrin yu mat jëwrin kenn ku ñu mosa wo di ci wax sa soxlay bop amut kep ku ñu mënta wo woo rek danaan ndigal lu bayeko ko sëñ Muntaxa nangam nangam te mëno nañu doon ay jëwriñ léegi la mu amu leen fa suukar wala amu leen fa nangam lu jëm ci ñom waaye yalla xamne am sa yu téléphone bi jibe wala whatsapp bi jëm la ñu ko ak ñom muy loo xamante mbégte la sëriñ bi la ñu war moo tax ñun sañu ñee deltu ginnaaw sañu itam laaj leneen lu xas ñëw rek ñun am nañ pas-pasu def loolu muy lu rafet ba ci màggalu poroxaan nga xamante am nañ bis boo xamante ne ma fatul bis da koy def ci koor gi daanaka mën nañ ne fédération bi fu waay bayee ko dañu ànd ak sëñ xaadim ñëw Gambie ngir sagal ñu ci liggéey boobu ba tax na Gambie gépp xam nañ ma fatul bis bi ci ñoom taxawaay buñ taxaw ak ñu ñu encadré ci liggéey bi euh, ci jàmbaare guñ jàmbaare kon loolu mooy li nga xamante ni moo doon suñu kàddu ànd na nag mboolem soppe yi ma faatulu Bichri ànd léegil Sëñ Tuubaa euh, mooy membre yaa nga ne ci daayira bi ñoom ñëpp ñëw nañ ànd ak ñun ànd ñun liggéey bi depuis dem ba léegi ñu ngi ci waañ wi dem nañ Sëñ Xaadim siyaar ko ñu ngi ànd ak ñoom ci liggéey bi loolu daal moo doon sama kàddu yoo xamante ni euh, ah, mën naa koo wax organisation ak ñëpp kenn desul ñëpp ñëw nañ ànd léegi bi soxna yeeg góor ñëpp ñu ngi ci waañ bi waaw lëngu lëngu daayira bi dañ koy def ba alarba bu jot ñu di ko aayewalante bu ko bàyyi ba du aaye àllarba bii beneen àllarba man ko muy at mi 52 bala la 52 àllarba ji àllarba ju jot kenn ku nekk dana ñëw joxe téeméeri dërëm muy 500 muy 50 dalasi nga xam ne mooy keesu gi nga xamante ni mooy keesu sëñ Muntaxa nga xam ne addee ji bu ñu liggéey bu ñu ñëmee ci liggéey Poroxaan bi nga xam ne ren ndigalu mat laa lañ am murid dañ koy jaayante kenn ku nekk ñu sas la benn mat la ñi mën a jaayante ñaari mat la ñi mën a jaayante mat ñetti mat la ñu def ko euh, ji nga xam ne dañ koy dajee Euh, bu Gambie am nañ fédération boo xamante ni at mu jot buñ tamxarit di dimanche njëkk dañuy jébbale kees gi sëñ Muntaxa ren daayira bi jébbal nañ si lu tolloog 300000 yoo xam ne bi bi fédération bi dem ñun cotisé nañ suñ 300000 mu ci addi yoo xam ne sëñ Muntaxa la jëm leneen li dañ koy indi ci Porokhane ndax la ñu sëñ Xaadim waxoon mooy comme da nekk Gambie ay daayira nekk fa ñu sos fédéral mu toll si 42 daayira fexe leen bu leen ci kenn man ndigal loolu nag lañ jël lépp lu ñuy laaj ci dëkk mu jëm suñu xaa daayira soppee xaadi nga mu seddes ginnaaw lépp li ñuy laaj ci kër sëñ Touba ga daayira bi daayira lu daayira joxe ñun dañ dañ koy joxe ca ca fédération boobu noonu nga xam ne tey boo boo bindee liste fédération bi at mu yëpp desaluñ fédération bi benn bot boo xamante ni ndigal yi sëñ muntaxaa di joxe si kër sëñ Touba ga wala yeneen ndigal yi am lu nekk daayira bi day ànd ak fédération bi ci biir 42 daayira yooyu def ko fédération bi itam ñu ci dégg mu béyee ko suñu Abdoulaye Ndiaye danañ jéem lépp luñ mën loolu daal moom ñu ngi si koom daayira bi ku tardé am nañ am nañ am nañ carte membre da ñëw suñ secrétaire ba da ngay ñëw ñu leer la liggéey bi ni mu tuddee nga indi sa photo ñu indi sa carte membre ñu bind ñu bind la ci léggéey bi li liñ ci li sarti mooy déguisement bi ñu sol mooy mooy premier ak àllarba sëñ Touba ji nga xam ne dañ koy laaj àllarba bu jot boo ñëw nga indi cinquante daal si muy juróom fukki daal si angale nga joxe ko jaayante buñ sas buñ joxe ci li jëm poro xaan sas boobu da nga ko joxe sas buñ jëm ci bis bi nga xam ne sëñ Xaadim Gueye dañu ko may muy ngontul ñetti fan loo xamante ni jël jël nañ benn bi jël ñetti séddale ko suñuy xarit nga xam dañ leen ko jox cant googu dañ koy jaayante kenn ko nekk ñii dañ leen sas 25000 ñii sas leen 15000 noonu lañ koy sasee ba xam ne bis bi lépp lu aaj ci bisub cant dañ ko fay def sëñ Xaadim ñeenti fan la ñu may ci koor gi muy sa ajuma samedi dimanche ba altine dimanche lay moon waaye daaw yokkal nañu si altine mu am ñeenti fan te lañ ñu waxoon mooy fekk ñëw ma fi semaine ngeen ne ma fii ngeen jëm fii ngeen jëm sama sama yéene ci yéen matagut comme benn fan lañ jokkoon may ñu ngi ci fan kon semaine ba mu ñu waxoon mu ngi suñ kanam dañoo te loolu la ñu waxoon nee li ma bëgg daal ma dugg Gàmbi du ma xam fan laa jëm tey fii ngay suba fee ngay jànge naa suba ba semaine bi mat ma dellu laaju ma leen itam benn dërëm ndax mos naa fee ñëw ngeen jox ma 10 000 pas-pas ba ma amoon ñu mujj wax soppi yi boobu balaa balaa laan 2000 la woon balaa laan 2000 la ñu yëkkati 10 000 jox mag maam ñu daanu ma amoon ci 10 loolu lañu ànd ak moom. ñu ngi sant bu baax ñii ñu àndal ndax jëwriñ képp boo ko bàyyee liggéey bi da koy dis gann waaye ñii ñoo ñu dooneel euh, kii di sëñ Aliou Bada moom mooy organisateur u daayira bi nga xam ne lépp lu jëm ci liggéey bi moom mii moo koy moo koy moo koy gàddu ndax bu doon jëwriñ ji rek dana di moom kat waaye lépp lu jëm ci liggéey moom mii moo koy gàddu lépp lu jëm ci xaalis buñ ko dénkee bàyyi ba du mii lañ ko kon daanaka jëwriñ dañ ko tiimale liggéey bi rek kenn post yi noonu la demee ndax daan daanaka amu am amu ci solo waaye ñoom saa yu ma gëstee gis leen rek luñ ma luñ ma wax damay damay ñimiloo ndax ñoo ma doole su ma mënee dara rek ñoom waaw ay jàmm ay ay jàmbaar yi ay jàmbaar yi sëñ Muntaxa lañ ay jàmbaar soxna jaar lañ ndax liggéey bi moom fu mat a àgg fu nekk saa yu ma gëstoo rek si ne xëy na man maay dem ba sonn sa wala ma tële waaye bu ma leen bu ma leen bu ma leen xoolaatee rek dafa mel dañ maa yokkaat pas-pas ngir sëñ Touba wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. salaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu ko nekk sa tur ak sant di leen jox seen wàccuwaay bu baax di présenté wu man Abo laa tudd Abo Mbaye kii ma dendal mooy sëñ Fallou ñu nag ñooy xale yi Serigne Khadim yor liggéeyu Porokhane bi ñetti fan muy ndekki yi kii moo yor wàllum kafe gi moo jëruñu kafe yi ah, depuis huit ans ñu ngi koy gérer di góor góorgóorlu di liggéeyal Soxna jaar bu Bousso ci keppaaru sëriñ Khadim Gueye waaw ñu ngi ci gis suñu bopp bu baax nag ndax mi ngi avancé comme ni ñu ko bëggee woon ndax chaque année suñ borom suturaal ñu yokku ñu doole ba ñu def loo xamante ne nii dina kawe suñ jort di ñaan suñu borom di ñu gën a dimbali ndax liggéeyu soxna si moom waaw liggéey la boo xamante ni ku am fooyam rek yaa fa yemale sa bopp mais soxna si moom pare na ci lépp lu waaye góorgóor rek mu jàppale la ca nga avancé waaw bokk ci jafewut ndaxte mbirum sëñ Touba kenn du ko xatal waaw pare nañ pour ñëpp tàllal suñu loxo ñëpp bokk ndaxte li ñuy def yaakaar naa ni bépp murit lañ ko defal waaye bépp jullit lañ ko defal ndaxte màggal gu mel nii ñëpp daje ñu joxe togg lekk gi bari ndox mi sëñ Fallou segg café gi mu neex ñëpp tàbbi ci ku ci bëgg bokk daal ñu ci 77 054 79 94 wala 458 62 15 incha allahu rabbi liggéey baangi non noonu liggéeyu yépp la liggéeyu jullit yépp la liggéeyu bëpp mourid ñu ngi leen di xaar di leen tàllal suñu loxo di ñaan luñ fi def rek soxna ci nangu ko. liggéey bi nak méttuut ni ñu koy doxalee mooy ay sas la góor ñi dañ leen di laaj 20000 15000 20000 jigeen ñu leen di laaj 10000 ba lu way am jaayanteeg yëpp bu ñu ñëwé ñu àndandoo liggéey bi nekkando fi doo berne ñëpp wax dëgg yàlla benn lañ boo tuddee Malick Diarra tudd Cheikh Adam Ba Ousmane Penda Fall jigéen ñi suñu yaay Mintu ñoom ñëpp rek damay bañ a lim di jum waaye ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ ay ndaanaan lañ yoo xamante ni ban jàppee ba léegi bàyyiwuñu affaire yi daal mi ngi rafet te ñu ngi ñaan suñu borom gën ñoo jàppale barki borom Touba. waaw sonjo yi jëm ci boole mu damay commencé ci sama bopp ndaxte yaakaar naa euh, kenn matul parfois ñu ñëw poroxaan doxe fi noo xamante ni nit dinañu jéppi wala ñu defee noo xamante ni dañ jànne nit wala dara waaye ñu comprendre ñu rek xam ni bis bi moo mel noonu ñetti fan yi fii def coono yi liggéey bi léeg nga war a def dara sax doo ko def nit mere la ci loolu lépp ñu koy tuub di ci jégalu ñu ñaan daal suñu borom gën ñoo jàppale ba fii ñu teg suñ tànk suñu borom dimbali ñu dëgëral ñu ko ba li ñuy séntu suñ kanam ñu mën ko def dem ba nga xamante ni du nekk 3 jours du nekk 4 jours waaye une semaine yëpp dañ koy yor di ko def comme ko bëggee barke borom Touba. Mafatul Bichri ko sëriñ bi di tudde fekk noonu na ci yëngu yu métti yoo xam ne nii ci diggante bernde la te ku ne bernde ne togg yàq joxe te loolu ci la mbooloo mi di dox bu ñu jëlee seenu ñaq boole ko ak li sëñ xaadim am ci ñaqam jox nu ko ñu boole ko di ko berndeel jaami yàlla yi nga xam ne nii ñoom ñooy teew fii loole ak cant la ndax nit koo xam ne nii bëgg naa yokk lu ne fii mën nga fee jaare ba yokk mu di joxe aw ñam te loolu ci la ñu nekk mbooloo mi nag mi ngi dox ci doxinu daayira boo ci bokk da ngay ñëw bindu am carte de membre di teg di daje ci réunion yi daayira yi nii def lu xew ci biir mbooloo mi tamit nga nekk ci doxinu daayira woowu nag moom la ñuy dox kon nag mbooloo mi daayira la ñii nga fi gis ñëpp ay soppe lañu xale yi groupe whatsapp yi ñii ci nga xam ne nii tamit tamit dañuy waaxu ba ñëw fekk nu fi di àndanteeg ñun ci liggéey bi te yàlla rek tax loolee nag bu fekkee ne aw nit dañuy dajaloo di def seenu ñaq ci lu mel nii lo xamne ni kenn mënu ko mbooloo moo man mbolo ñu jappando ci kon ñi ngi sante mbolo mi di leen gëreem ci taxaway bi nga xamne mom lañu taxaw ci wañu wañu nak boko gisee ni mu melni senegal sénégal fi daje tey sénégal nag fu nu daje maanaam mane jubo àndandoo doon benn lépp ci liggéeyam suñu borom la ak soxna si mo tagat xol yi tagat xel yi ba dara du fi am lu ñu def ko ci siratul mustaqim mu neex lool te ñaan yalla at mu jot mu ne saay ñoy gën ko jekku ndax jekku gogum mom la ni ñaan yalla di santaale bu baax tamit suñu jëwriñ ji nga xam ne ni tey jii liggéey bi li muy dox ak li muy ci fi ci toll nii grâce à Cheikh Abdou Lahad Ndiaye parce que nit ku am yitte la ci li muy def nit ku am jom la ci li muy def nit ku am tamit kóolute la ci li muy def te ku gëm yàlla la loolu nag bu fekkee ne nit dalaa jiite ba pare wëlbatiku di dox ci lu mel noonu dangay ngay ñime yow ndax bu fekkoon day yoxi wala muy daw benn responsabilité rek du ñu ñime waaye seetlu leen at bu jot saa yu nu ñëwee fii màggal gi toll tey jii yàlla def na ne yóbbu na ko fi ba mu ko fi yóbbu fekkoon na ko ci ay loxo yoo xam ne nii ku mel ne Serigne Mbacke Babou la mu yor ko doon ko doxal doxalin wu rafet àndante koog ñun waaye loola mu ko doon ànd tey tamit teewut mi ngi woon ci wetam di ko di xam ni liggéey bi di doxee di ci dox ak moom ba nga xamee ni dem nañ ba kee am galfan goo xam ne nii téye na ko ci genn wet gi ñu jox ko ñu am suñ kóolute jox ko liggéey bi tey ji àggale na ko foo xam ne kawe na suñ njort di ñaan yàlla suñ borom bi subhanahu wa taala defal ko lu kawe njortam ci liggéey bi suñ borom it gën koo dëgëral wéeral ko ci barke Cheikhul Khadim te loolu lépp dana am ndax kuy liggéeyal soxna si soxna see lay fayal boppam tey nag yombul soxna jaara liggéeyal ko yombul kum jox ab cër ci boppam rek ko mën a liggéeyal te xaj na nag danoo boole ci boppam moo tax ñu koy liggéeyal ñu ñaan yàlla liy jëm kanam tey fu muy jëmee kanam sunu fan di gudd sunu wér di yokk ñu dund ba yéen xale yi tamit wet gi ñu taxaw ngeen taxaw fu ko raw ci barke Seexu Xadim kàddu yu mujjee ak soññe yi mooy ñu tàggataat sunu bopp tàggataat sunu xel tàggataat sunu doole ci liggéeyal soxna jaara te yàlla rek tax ndax lii yombul kon nag niñ ko jekkoo ren bu ne yàlla nañ ko jekkoo nu ko raw te ñu ñëpp kenn bañ a manqué ñu fekkee koy at yu bari ñun ñu ànd ko soppe yi ak xale yi ak groupe WhatsApp bi ak ñëpp di ñaanali tamit Serigne Khadim Gueye mii nga xam ne ni gannaaw yàlla tey mooy sunu bunt ci soxna jaara sunu borom guddal aw fanam wéral ay cëram te yàggal ko fi lool tam ànd ak wér te bàyyi ko sagoom saa yu xëyet baatam bi ne gën di neex ba lu muy bëgg a wax ci xasaayit Sëñ Touba sunu borom gën ko ko yombalal ci barke borom Touba suñu borom mën na ko am na ko yàlla na ko defal te ñun ñu koy déglu it suñu borom bàyyi nu fi nun nu bañ a tëx bañ a gumba bañ a muuma ba am nuñ koy nun koy nun koy ànd ak moom ci xasaay di jërë ngeen jëf